بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين nu ngi sant sunu boroom di ko bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaaram yu kawe yi nga xam ne sunu boroom bokklewu ko kenn waaye nirlewu ko kenn noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad salawatu rabbi wa salaamuhu alayhi di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci sunu ñetteelu bind ci tombab kayfa rabbaytu waladi naka laa def ba yar sama doom ba mel ni mu mel ni mu mel mooy ni lislaam gërëm wala kayfa turabbi wala dëkk naka ngay yaree sa doom kayfa turabbi wala dëkk gis ngeen ci sunu bind bi weesu ñaari njàngale yi nga xam ni benn bu ci nekk feeñ na ci tàmbali ak sunu bindab démb bi ci ñaari tomb yi mu tënk muy ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may la njaboot waaye boo noppee nga tànnal say doom ki war a nekk seen yaay tombab tay bi xam naa dinaa xaw a yeexal li ma waxoon démb ndax démb maa ngi dige woon ni dinañ ko def ci yarkat bi nga xam ni moom mooy réussir ci yaram ginnaaw bi ma gisaat ni booba mujjee ko moo doon gën ngir yëf yi am ak toggaloo tey maa ngi koy def ci jumtukaay yi nga xam ni nag aji yar wala lenn ci jumtukaay yi nga xam ni aji yar daf koy jëfandikoo pour mën a yar ma tënkee ab laytaay boo xam ni moom lay tënkee bindam tay bi ginnaaw boo xam ne nit ki tànnal na doomam yaay ci nañuy tànnee yaay ginnaaw boo xam ne nit ki tànnal na doomam baay ca nañuy tànnee baay ginnaaw boo xam ne nit ki góorgóorlu na ba farlu ba yàlla wërsëgal ko yooya bu doom feeñee nag léegi dañuy delluwaat ci bind bu njëkk ba ca farlu ci wàllu nàmpal ak njàngale yi tarot ñu xam ni bokk na ci yëf yi nga xam ni dama koy tënk romb jàll ndax dinañ ko faral di waxtaane ci jotaay yu bari mooy nit ki su ko yàlla wërsëgalee soxna dafa jaadu mu jëf njàngale sunna boobee nga xam ni am na jeexintal ci soo amee doom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jàngale nit ki su amee soxna wala bu jëndoon ab waruwaay wala moom ab jumtukaay mu jël loxoom teg ko fa tolloog bopp ba daal di ñaan ñaan bile mooy allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alayhi wa audu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi yow yàlla maa ngi lay ñaan yiw wi na ci soxna si ak yiw wi nga xam ni moom lan ko mooñaale mu ëndaale di muslu ci yow ci musiba yi ne ci moom ak musiba yiñ ko mooñaale loola jeexintal bu rëy la boo xam ni ulamaaw tarbiya dañuy wax day jeexintal ci nit ki bu ko yàlla wërsëgalee doom ca doom ja ñaareelu jàngale mooy yonent bi dañi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jumtukaay yi nit kiy def ba njabootam mucc ci seytaan mooy bu namee ànd ak soxnaam mu daal di ñaan ñaan bii muy allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana yow suñu borom wërsëgal nu nga musal nu ci shaytaan waaye lépp loo ñu wërsëgal mu di njaboot nga musal ci shaytaan loola yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku ko def su ca doom sosoo seytaane du ca man dara bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne dañ koy romb jàll rek ndax yooyu taxu ñoo jóg tey mooy nit ki su fekkee doom judd na mu def li ñuy tuddee ak taxniik taxniik xam naa mooy tolloo toqantal ci wolof nga xam ne da ngay jël tàndarma yëyi ko ba mu mokk nga jël sa baaraam génn ci ci sa gémmiñ daal di koy riix ci gémmiñu xale bi su ko defee mën koo melestiku loolu la ñuy tuddee toqantal ni ko nit ñi defee nag di bind ay saafaraak di bind ay téereek ila axiri yi di ko jox gone yi déedéet du noonu la ko yent la defee sallallahu alayhi wa sallam waaye lay sunna mooy nit ki jël tàndarma loolu nag borom xam-xam yi dañuy wax ni sopp nañ nit ki su ko doon def amanda bu gisee kum foom ne kii yee ko gën a ragal yàlla wala kii yee ko gën a baax mu sant ko ko la koy firndeel mooy sahaaba yi ba yonent bi dund sallallahu alayhi wa sallam daanañ yëkkati ab liir indi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir yonent bi defal ko lu mel noonu loola nag xëy na sàkku ga ñuy sàkku ca waaja ak dëggoom ak seen lam ak mbaaxam loola mën naa am jeexital def ci xale bi ndax ay taflitam lay àndal bokk na ci yëf yi nga xamante ni dees na ca sonn mooy am na solo lool ci bëgg a yar xale bi mooy nga defal ko li ñuy tuddee ngénte ngénte nag ñëwuma pour détailler ko wala faram fàcc ko waaye la ma ca nam rek mooy ginnaaw bu ko nit ki wutalee tur wu baax woo xam ni bokkaale yàlla amu ca lu bon amu ca wala loo xamante ni buñ ko tekkee day tax nit ki bew mbaa mu fuuy mbaa mu réew yooya du ca am su boobaa wala boog ay gaafal amu ca loo xamante ni dañ cay wax lu bon comme lu mel ne ay sagaru salak du fi yendoog loolu nga xam ne ay xeeti gaafal la yu làqu ca gannaaw te nit ñi xamuñu ko su loola jàllee nit ki rendil ko ñaari gàtt bu dee góor la benn gàtt bu dee jigéen la mu mooy tuural deret gi su paree mu daal di koy wat sobe kawar ga nga xamante ni moo nekk ci moom daal di koy dindi bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne yu mat di bàyyi xel la mooy gone gi dañ ko war di muslul muslu gi nag nekkul comme ni ko nit ñi foogee léeg-léeg nga def ko léeg-léeg nga bàyyi ko déedéet maanaam muslaay gi nit ku ne saa su xëyee wala ngoon gu ne war naa muslul doomam borom xam-xam yi dañuy wax nit ki mën ngaa jël bu dee xale la comme mënagula waxal boppam mën ngaa jël sa loxo teg ko ci boppam nga jàng xulasul falaq xulasul rabbi naas xul wallahu ahad mën nga teg ci sa loxo nga jàng ayatul kursi wala nga ñaan ñaan bi doon yentu jàngal aawus bi kalimatillah bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lamma kon yii xeeti yaan ay yëf la yoo xam ni maanaam bokk na ci sunna nit ki di ko def gis nga nag ñaan yooyu dafay aar gone gi ci shaytaan waaye da koy aar ci bët ak làmmañ bët ak làmmañ mbokk yi ñaar yu garaaw lañ te mag jumtukaay yi mu am ci protéger wu ginnaaw ndimbalal suñu borom gone amul gone xam nga dafa yaacaaral moom xamul mënul amul su ko defee kon gone gi yow yaa ko war di muslul gis nga soo ko deful benn bët mën naa tege ci gone gi wala benn làmmiñ comme ni mën a tege ci mag xam nga mag sax moo gën a tane ndax mag amaana muslu yi muy def ak yi muy jàng ci alquran yooyu mën na ko protéger waaye gone loolu amu ci moom léeg-léeg nga gis ndeysaan gone juddu mel noo xam ni wala gone juddu xiibon wala gone juddu du dugg hôpital fekk bët rek ko jàpp du leneen maa ngi ko doon wax ci wenn waxtaan wu def ci wàllu bët ak làmmoñ ma ñu leen même nit dina feebar mag dana feebar dem di faju ji fekk li ko dal bët la nit mën a dem ñu ne ko da nga cancer fekk effectivement daa cancer waaye cancer bët moo ko waral mboolem feebar bu ñuy faj hôpital yëgal ni bët dina ko waral borom xam-xam yi dañuy wax ni léeg-léeg mën ngaa ñëw ñu ne cancer moo la dal wala ñu ne diabète la wala ñu ne hémorroïde la wala d' accord loolu la médecin bi mën laa jox ay garab te du la tax a wér parce que loolu mooy li feeñ waaye problème mooy li ko waral lan la li ko waral bët la gis nga loolu nag bu laalee gone ca lay gën a garaaw moo tax yonente bi dafa xool waa kër jaafar jaafar ibni abi talib jaafar ibni abi talib kon waa kër doomi baayam lañ jaafar doomu baay la ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi daal ni soxna jaafar asma waaw sama gone yi moom lan moo tax ma gis leen seen tànk yi sew lool ñoom xanaa dañ dul lekk ba suur ndaw si ni ko déedéet bët moo leen jàpp yonent bi ñun kon motti leen kon gis nga loolu mën na def jeexintal ci gone gi ba muy misère di jeex wala bopp bi mel wenn melokaan wala boog biir bi di fonki wala boog xale bi foo ko fekk muy wàcc wala yaram bi di tàng yooyu yëpp bët mën na koo def ak làmmoñ moo tax borom xam-xam yi ulama tarbiya dañuy wax ni nit ki na sonn ci di muslul ko neen guddi gu jot suba gu jot beneen jàngale bu am solo mooy timis bu xësee jot xale yi nañ leen téye est ce que xam ngeen ne timis la seytaan ay rakkaaju waxtu timis seytaan day rakkaaju loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam seytaan dafay rakkaaju gis nga bu timis xësee jot su na day digle buntu kër yi nañ ko tëj xale yi nañ leen téye bu ñu génn ba timis gi jàll bu jant bi so beneen bi ci des mooy yónnent yeeg yooyu yëpp nañ ko dakkal gis nga timis bu jant bi sox jamono bi muy dugg seytaan yi day rakkaaju fi lay fi lay génn di raafala ci mbedd mi rek maanaam jamono jooju seytaan day génn ci mbedd mi rakkaaju di dekone jamono jooju nag la ca fekk mag fekku ca gone moo tax même bu dee jàkka ja ngay dem même bu dee vote fexe ba boo génnee timis bañ laa fekk àll waxtu woowu te it bu waxtu yu jotee nga téye gone yi bam jàll loola bokk na ci sunna yi nga xamante ni nit ñi dañ koy faral di sàggane te am na solo trop bokk na ci yëf yi nga xamante ni am na solo lool nit ki di ko bàyyi xel mooy gone gi foo toll dee ko nemmeeku ci bu amee luy metti wala yu demee noonu ngay jëfandikoo ñaan yi nga xamante ni mooy ñaani sunna yi yii daal mooy tënk yoo xamante ni amaan na xëy na waxtaanee ko mi ngi jëm ci yeneen jataay insha allah des na mas am ci kàttanu suñu borom waaye dama ko doon junj rek ngir aji yar ci xam ne yii moom mënta ñàkk nga yóbbaale ko doon taxuñu woon a jóg waaye ci la bokk it nag su ma noppee ca loola nag ma daal di ñëw nag ci léegi nag tànn nañ yaay tànn nañ baay ñaan nañ yàlla doom juddu na sabablu nañ sabab yi lii léegi nag gone gaa ngi commencé xàmmee nag tey bu gaañoo mbaa nga dompat mu jooy boo ko defee nii mu daal di reetaan ah léeg-léeg ngay wax ak moom xëy na mu xaw a comprendre tuuti ci li ngay wax léegi nag ah yar bi nag nga tàmbali dëgg nag commencé di accélérer nag maanaam foofu bul ni liir la xamagul dara comme li ma doon wax way jur mën naa ñëw mu ne ah kii de liir la mënagul a dox muy summeeku daal ni xaw wañ ci kanamam xale bi di ko gis loola baaxul ci bëtu xale wala ngay teg luy musique wala yu demee noonu gone gi di ko dégg loolu baaxul ci xale donte da nga naan di xamagul dara waaye yëgal ni mi ngi enregistré jamono jooju dafa war ci ja yaay yi ñu bàyyi xel tomb bi bu baax dafa jaadu ci yaay yi comme ni mu jaadoo ci bàyyi ñu xam ni yar du mbir mu yomb mbokk yi yar du mbir mu yomb ku ci am ndam yàlla moo la dimbali waaye da ngay préparer xale bi ba yëngal ak yëgukaayam monte ci ay appareils yi tax mu mën a baax rocc ci appareils yi tax mu bon sëmbërtal ci moom wala jëmbat ci moom jikko ya nga xamante ni moom la ñu yàgg ña salafu saalih doon jëmbat ci seeni doom ci jikko yi rafet ak xeet yi nga xamante ni dañ ko doon jëfandikoo foofu nag balaa may jàll dafa am lu ma gi salafu saalih doon def bu xale bi commencé ràññee xëy na ñun buñ koy def mooy tolloo jël sa doom yóbbu ko daara xanaa loolu lay tombeel waaye bu dul loolu daanaka xaw tuuti kon defatul lu ni mel mooy nit da daan utal bu yëgee ni moom xëy na gis na ku ko dàq yar wala amaan na mënta yar daf daan wut li ñu tuddee murabbi loolu moom ci jamonoy salaf moom dañ koo xamoon moom dafa nekkoon loo xam ne daanaka xaw tuuti kon nga ni ñëpp a ko doon def lu néew ci nit ñi ñoo ko daawul def mooy seet benn waay boo xam ni jikkoom neex na la melokaanam neex na la diineem doy na la nga jox ko sa doom pour mu yaral la ko góor la ëppoon luñ ko doon def nag waaye gisuñ tegtal buy dàq ni mënees na ko def jigéen salafu saalih ñoom rawatina ñi nga xam ne amoon nañ ay moyens ndax xam nga loolu dafa laaj fay tamit nag ndax jamono jooju dañ koy fay da ngay gis benn waaye boo xam yaa koy jël mu occupé sa lépp pour mu jàngal say doom ak di leen yar boo seetloo li ëpp ci ñu ko doon def buur ya dañ ko daan def ñoom nga xam ne ñoom amuñ jotu yar seen doom amaana borom xam-xam yi ñoom wala ñi nga xam ne gëm nañ mën nañoo yar seen doom amuñ ca aajo waaye buur ya ñoom dañ doon faral di jëfandikoo lool te buur yi nag su ma nee buur yi mooy buur yu gëm yàlla ya ndax ñoo doon jiite jullit ñi al imam jaaxiz dafay nettali ni oqbata ibni abi sufyan day ba mu yëkkatee doomam di ko jox mu addib ba mooy ka koy yar dafa am ay ndénkaan yu mu ko joxoon ndénkaan yooyu nag li tax ma di ko nettali mooy ñu nit dañ ko war a bàyyi xel ngir ñu mën koo dimbandikoo suñu yari doom nee na ko li yakun awala ma tabda'u bihi min islaahi bunayya islaax nafsi yëgal ni balaa ngay tàmbalee yar di ma yaral sama doom yow yarul ba pare yow sëriñ bi yarul mu ni sëriñ bi dama bëgg nga yaru ba noppi nga tàmbalee ci loolu doog a jublu ci yaral ma sama doom ndax ku yaruwut doo yare mu ni fa inna ayunahum maqudatun bi ayni ñoom seen ñaari bët fi ne ñi ngi la fixé rek ndax yow lan jàpp ni fi ne yaay exemple bi yaay repère bi yaay delluwaay bi yaay lépp فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت xale yi li rafet ci ñoom mooy li ñu gis nga di ko rafetal xale yi li ñaaw ci ñoom mooy li ñu gis gis nga gone bi li nga koy tere te yow bàyyi woo li nga koy digal te defoo ko loolu du sab ci moom waaye jeexintal bi gën a rëy ci gone mooy mu gis ni li nga koy digal yaa ngi ko cay jiitu waaye li nga koy tere yaa ngi koy koy jëkk a moytu di ko mu ne allimuhum siyar al xukama soo toogee gone yi di leen jàngal na nga leen nettali histoire ñu njëkk ña gaa yi nga xamante ni ay expert lañ woon ñu am xam-xam ay boromi xam-xam borom xam-xam yi niñ meloon ah ñi amoon xikma te yeewu te am expérience ci wàllu àddina am xam-xam ci wàllu diine ñooñu dee leen sélectionné di leen tànn di ko nettali xale bi ndax xale day capté gis nga affaire yooyu nga koy nettali ba tax nit yeewu boo koy nettali xale ni mu koy mokkalee sax loolu firnde bi ma ci am rek gone yi ne ci daara ji léeg-léeg man ñu fàttali ma loo xam ne dañ ne ma yaa ko waxoon ci darsa te yàlla xam ne man fàtte naa ko man maa ko jàngale woon waaye bu ñu ma ko waxaatee day fekk man fàtte naa ko loolu lim may dal bari na lool ci ci gone yi ndax yàggaay ba moo koy waral léeg-léeg loolu da lay wan ni kon gone yi mën nañ jàpp nga di leen nettali histoire gaa yu baax yooyu ah ak niñ xereñee woon ak niñ muusee woon ndax xakim buñ ko waxee mooy xam borom xam-xam waaye ci biir borom xam-xam gaa yu xereñ ñi ca lañ bokkoon su ma ci doon joxe misaal defe naa joxe war naa ci misaal ab jamono waa joo xamante ni dañoo sàcc bi ñu sàccee xamuñ kan moo sàcc ñu gëstu gëstu léegi pexe miñ man mooy benn waay bu yeewu bu am xikma dani buur bi da ngay jël benn buum gis nga maçon yi bu ñuy tabax seen corde yooyu ni ñu koy diwee loolu lëfin ki nu mu tudd bu la mati seen bu la yooyu bu ñu diw ko ci mu ne ko da nga koy takk ci biir néeg bi néeg bi lëndëm léegi mu ni ko mbooloo mii lañ sib sone ñii moom kenn ko ci sàcc te xamuñu comme doon mu ni mu ni léegi da ngeen di dugg su ngeen duggee fekk ñi ngi lëndëmal néeg bi diw ci bula ci buum bi mu ni yéen ñëpp bu ngeen duggee ku dugg na nga tàmbalee ca koñ ba téye buum bi riisu ba ñëw fii mu ni buum bi dina ma wax kan moo sàcc buum bee may wax ku sàcc nee na ku sàcc rek ki sàcc bu laalee buum bi rek dina ko jàpp ah gaa yi dugg ci biir néeg bi mu tëj bunt bi mu ne ku nekk tàmbalee sa kaw téye buum bi di ñëw léegi ku téye buum bi ba ñëw luy xew ah sa loxo bi day takk du la waa ji sàcc mu ne kon gis na moom gis na gis nañ buum bi ñu koy bu la mu ne kon man comme maa sàcc te buum bee ko nar a waxe xaaral man moom damay taxaw fee dox ba yegg sa du ma ko laal léegi bi gaa yi génne ku ñu xool sa loxo takk bu la rek ñu ni demal waaye ñu xool ko loxoom takk bu la ñu ni sàcc baa ngi lu tax sàcc baa ngi parce que wóolu bu wóoloon moom dana laal dana laal affaire yu mel noonu boo koy faral di netti li gone dafa yeewu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mën nañ cee joxe ay misaal yu xóot ci yar xale bi ci nettali ko ñu yeewu ñaak borom xam-xam ya ila axiri wa axlaqal udaba ñu njëkk ja tamit seeni jikko ak seeni yar ak seeni melokaan yooyu tamit dee ko jàngal gone gi nee na booy mu ni ko booy yar gone yi bul sedd seen baay xam nga da ngay sedd sa ba seen baay ah su ma ko dóoree seen baay sama lii la sama nangam mu ne ko déedéet dama laa yarloo yow xoolal li xale xale bi laaj nga def ko ci te loolu tamit way jur yépp a ko waroon di wax nag mbokk yi way jur yépp a ko waroon di wax maanaam gone yi ci boppam amul benn sentiment que kii diw diway baayam wala diw diw na nangam déedéet xale bi da nga koy jox lam yar bul séntu diway baayam wala diw baayam def na nii diw baayam deful ne déedéet yooyu moom bul ko sént beneen bi ci topp mu ni ko na nga mel ka tabibi alladi la yaajalu biddawa xatta yaarifa daa na nga mel ni médecin ab médecin balaa joxe garab du yàkkamti médecin bi da est ce que médecin bi da ngay ñëw ni ko lu la dal nga ne sama bopp mooy métti mu yëkkati paracétamol jox la est ce que noonu la déedéet médecin bi day am lu mu teg fii bu paree am lu mu teg laal bopp bi su paree mu ni ban heure la commencé metti su paree mu xool ndax mettit wi sidit yii la ndax mettit wi ci ngàllu bopp bi ci ginnaaw la ndax am na lu ñuy tuddee asudaau nisfi mooy benn côté bi mooy métti am na loo xam ne fii ci ndong gi mooy métti am na loo xam ne bopp bi yëpp ay ànd di métti yooyu yëpp ay xeeti yëpp la yoo xam ne seen faw mu teey gis nga jàngalekat bi dafa dafa noonu la war a teeyee jàngalekat bi ak yarkat bi dafa war a teey ci xam bu fekkee day yar gone gi fan la war a tàmbalee ak ci lan la war a yar bokk na ci jumtukaay yi nga xamante ni dénk na ko ko nee na ko bul sukkandiku ci ak dëgëral ba nga lor xale bi waaye tamit bul sukkandiku ci nooyal ba nga lor tamit xale bi ibn khaldun ci muqaddimatam nee na haruna rashid dafa jëloon doomam al amin te boobu sax histoire boobu moo gën a siiw ndax amin ak mamun xam ngeen ñaar ñooñu ñaar ñu siiw lañ kenn ki jot naa nekk amirul muminin muy ami mamun fii borom xam-xam yi dañuy nekk li benn histoire bu yéeme benn bis amin ak mamun sëriñ bi leen doon yar amin ak mamun sëriñ bi da leen doon yar ñu toog ak sëriñ bi ba mu yàgg sëriñ bi jàngale ba war a jóg te loolu gone yi dañ ko déglu sëriñ bi war a jóg gone yi dañoo respecté woon seen sëriñ ponk ko ba su jógee ñoo koy lesal ay socc ñoo koy toppatoo ñoo koy fóotal ay yéreem ñoo koy defal lépp léegi sëriñ bi jóg di dem rek gaa yi jóg di xëccoo dàll yi maanaam ñoom ñaar ñuy xëccoo dàll yi kan mooy jox sëriñ bi dàll yi mu sol kenn daal di yem ci dàll ndeyjoor bi kenn yem ci dàllu càmmoñ bi ñu ne kon waaw koy noonu la ku nekk am nga sa wàll ndekete bëkk néegu buur lañ koy gis léegi bëkk néegu buur daal di ñëw bàyyi affaire bi noonu denc ko ba benn bis buur daal ni waaw yéen kan ngeen xam ci ku gën a ku gën a tedd fi mu nekk nii gaa yi daal ne ko ah buur kay yow xam nga ni ku la gën a tedd gisuñu ko fi yow kay yaay buur yaa gën a tedd bëkk néegi buur bi ni déedéet koo xam ni saa bu jugee di dem ñaari doomi buur di xëccoo ay dàllam ku koy solal kookaa gën a tedd buur ñi moom ci li muy wax ni kaay mu ñëw mu ne ko nga ne lan mu ne ko ki gën a tedd mooy koo xam ne su jógee bëgg a dem ñaari doomi buur ñooy xëccoo ay dàllam di ko ko solal mu ne ko loolu mooy lan mu ne ko sa ñaari doom yi damaa fekkee benn bis ci ki leen di jàngal jóg ñuy xëccoo ay dàllam ngir fonk bu bëgg ko koo solal buur bi daal ni ha ndekete kat xam-xam rek moo wóor ko kon ab jàngale bu rëy ngoo léegi bi ñu andee amin muy jàng si sëriñ bi daa wax amin daa wax ahmad muy ki nga xamante ni moo leen doon yar ni ko yaa ahmad inna amira almuminin dafaa ilayka muhjata nafsi wa tamarata qalbi yow amirul muminuun yow sëriñ bi yëgal ni amirul muminin muy njiital jullit ñi kat daggiti xolam la la jox meññeeti xolam la la jox ndax xam ngeen doom dafa jege xol lool nee na daa yëkkati doomam jox la te yow moom mooy sa kilifa kon moom nga war a topp te topp ko daa war kon ngallawaay na nga def ci xale bi li amirul muminin bëgg nga def ko ci gone gi mu ne ko aqri al quran na nga ko jàngal alquran foofu tamit yaay yi nañ yëg ni même bu ñu amul yarkat yaay day jàngale doom ñun fii fii rek ngay ñëw doo gis jigéen ju ñu moo jàngal doomam fii gànnaar gii nga xam ne ñun ñoo frontière boo waaxoo léegi dugg oto nga yegg fa boo fa demee da ngay fekk ay xufaas yu dul jeex yoo xam ne da ngay laaj diw ko la jàngal mu ni sama yaay ma jàngal ba ma mokkal ca ron xayma bi te ñoom ni ñuy jàngale sax dafa simple bokkut ak suñu jàngale yi nga xam da ngay dëj xale bu toog benn bala déedéet da nga koy joxum jukkee mu dem jàngale léeg sax mën na kaa yóbbaale fa muy fooyee ji façon jàngale bu simple boo xam ne xale buy mokkal sax du ko yëg du metti ci moom façon boobu jàpp naa ni maa ngi nii di ko junj waaye jigéen ñi war nañ koo jëlaale pour di ko bàyyiwaale xel kon jàngal ko alquran kon gone gi yaay ji war nay fexe di ko jàngal quran beneen bi ci des mooy dañu ko xamal ko xabaar yi paase xam ngeen ni li wees nit yi aad nit yi samuud ñoom firawna maanaam affaire yi doon jàll dafa war ñu koy dittal xale bi parce que fi ne boo seetloo yar ñàkk mooy lii yarkat yi war a def ci gone yi maanaam gone yi defuñ dara gone yi defuñ dara parce que gone yi xamaguñ dañu la war a xamal kon yarkat yi bàyyeeg yaay yi ak ñun jàngalekat yi noo war a yëg ni nun ñoo war a jubbanti gone yi ba mel nin war a mel ndax garab gi xam nga ni boo ko jëmbatoon bàyyi ko foofu jubbanti woo ko roose woo ko ñagoo ko bëyi lekk ko mu dee waaye soo ko topp tooyee mu mel na nga bëgg kon gone gi yarkat bi wala yaay ji ila axir yi moo war a sonn ci moom mu mel ni mu war a mel nee na allimhu sunan na nga ko jàngal sunna yi ñun ñaata ñu sunu sunuy gone duñ leen jàng da ngay jekki-jekki ni saraax ci biir néeg mbaa boo ne saraax ci biir néeg du gaale say daal xàmmeewul mag xàmmeewul gone mën na laa fekk nga toog sax mu joggi sa ñaari tànk dem xoolal loolu gone yi xoolal loolu li ñu koy def fekk magum jëm mu toog ngay jàll au lieu que nga teggi na le nga dem joggi ay tànkam loolu du yar di wax ak ku la mag wala ku la mat bàyyi siggi ni ko xëj xëjjëral di ko xool di wax loolu du yar mag di wax ak yow ngay tontu loolu du yar dugg neeg mag te fëggoo loolu du yar boo bëggee ni salaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam loolu tekkiw li mooy duggal mooy da ngay déglu ñu ne la bismillah ah gone bu ko mag yónnee daa war a dem ak yu bare bari yoo xamante ni yun war a jàngal gone la loola jàngalekat yi kon mooy allimhu sunan sooy dugg jàkka xoolal suñu gone yi buñ duggee ci jàkka ji ni ñuy mel lii dafa rus lu sax te ñun la de ñun ñii la ñun ñii mooy man ak yéen gone yi buñ duggee jàkk yar bi ñu war a am duñ ko gone ak mag ñooy am ci jàkka gone bu duggee jàkka dafa war a toog yem benn place waaye gone yi ñu ngi coowaloo pour parce que ñun mag ñi lañ gis ñuy coowaloo ci jàkka ji ñu ngi dàqantee ka birdi birdi ñenn ci mag ñi lañuy gis ñuy dàqantee ka birdi birdi ci jàkka ji waxoon naa ko fi ab jamono maa ngi koy waxaat te ñun jàngalekat yi ñoo ko moom xale yi xam ngeen ni ni ñuy yaroo ci biir xalqa bi suñ ko doon yaroo ci biir jàkka ji ñu am jaam xale yi seen curux curux carax carax jii ñuy def ci jàkka ji duñ ko def ci biir xalqa yi lan moo tax ñun jàngalekat yi xalqa bi dañuy respecté ba gone gi xam loolu ñi maw la nekk di corox coroxi te jàkk ji moo gën a for xalqa bi waaye dañuy bàyyi gone gi nu ko neex mel ci jàkk ji te bu ñëwee ci xalqa bi nag ah gis na ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari ñi ngi ciy ñi ngi leen ciy dóor ci xalqa bi te waruñu leen ci war a dóor te am na lu ko gën a garaaw te ñi ngi leen ci war a dóor te dóoruñu leen ca yooyu yëpp yooyu suñ kaw lañ këpp ñun ñii ñun yarkat yi ndax bind bi jàpp naa ne bind ab defaru la pour ñun kon dañ koy xamal sunan yi sunna yi boo duggee jàkka nii ngay def boo defee nangam nee ngay def gis nga bu ngelawee sax xale bi xam na lu muy wax gis nga bu dee taw xale bi xam na lu muy wax bu ginaar sabee xam na lu muy wax bu mbaam ngaaxee xam na lu muy wax aawut bi kalimatillahi taamaati jooju ma doon wax gone gu mën a gu la wax lañ koy waxal waaye xale bu dee ba man da nga koy waxal léegi gone yi est ce que ñu ngi def seen i askar sama gars yi askar yi est ce que yéen a ngi koy def su tuutee ma tuuti bis bi ne nga def téeméeri astaghfirullah téeméeri subhanallah wa bihamdi téeméeri subhanallah téeméeri alhamdulillah téeméeri allahu akbar ah téeméeri laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ak bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul alim ak i mbokkam est ce que ñu ngi koy def man sax dama yab xale yi ma di leen laaj mag ñi sax laa waroon a laaj bu ko defee mag ñi ne déedéet ba taw waaw am na ñu koy def ci ñun mag ñi daanaka man li may laaj waruma koon laaj gone yi ndax loo xam ne mag ñi defuñu ko gone yi taxut di wax gis nga ñu ngi noonu hakata gone yi jàngaluñ leen sunu te dañ leen a war a yar maanaam yar bi nekk dugg ci xalqa bi rek jàng dem ci jàkka ji de fekkee xutba fekkee nangam déedéet nañ leen yar ci tamal leen sun sunan yi ñu xamal leen sunna yi xale yi ñu xam lan mooy sunna di ko jëfe loolu dafa jaadu nit nit ki ñu yar ko ci gone gi muy def ay sunna yu kéemaane lu ko waral parce que dañ ko koo jàngal du jox loxo jigéen ah xale bi li nga koy jàngal xam nga fan yee passé maa ngi leen nettali woon ci dars yi passé gone googu ak maam ja ka fa kastalu woon defe naa waxoon naa ko beneen bi man mii la daal pour wan la yi gone yi jàngal leen rek après dañuy jëfee fii ci daara ji am na sunu gone ku sopp bu fi newoon macha allah pour wan la xale léeg-léeg tuutaay bi du tee mën naa sopp te it nag foofu ma am benn mafhum xaati bu may jubbanti léeg-léeg ñun xale dañuy defe ni sopp da koy yàq déedéet sopp léeg-léeg mu wax ci xale de ñu ne eh yow toogal ni nga sobee ni nga doojee su ko defee xale bi da ngay fatt am xelam fatt lu mu nar a def sax bu la xoolee ragal déedéet xale bi fii cotte gi yóbbeewu ko mu def lu araam wala mu def lu ëpp bàyyi ko gone gi may wax nii yaakaar naa su juróomi atam matee juróom wala juróom-benn dig digal soo soriwu ko dama ko fekk mu taxaw ci jigéen bi ma ne ko hey jugal fii laa wax xale bi dañ doon góor toog ci ay jigéen mu daal di jóg dem ca ëllëg sa yàlla nattu ma ma am lu may liggéeyloo jigéen ñi ñu nekk di ko liggéey ci booli ba war maa woo ma it ma ñëw sëgg fa ma sëgg xale bi fekk ci digg nit ñi ni eh oustaz jugal fi waaye nga dem ci góor ñi di jëma ci góor ma boole gàcce ak sant yàlla nag keroog moom dama am gàcce waaye sant yàlla gàcce gi mooy jubbanti na ma waaye sant yàlla gi mooy la muy jubbantee lu baax la te man soxla laa doon dem de eh oustaz jugal fi waaye góor dem ci ay jigéen la ma ko waxoon la ca jaaraan xool lu mel noonu kon xale bi la ma ko waxoon nekk te fàttewu ko te xoolal gone gii may wax de li ma am yaqin mooy juróom-ñaari atam matu matu doon booba xanaa dafa yeewu nii rek xool loolu moo lay wan ni kon gone gi li nga koy bàyyi li nga koy yaree mi ngi koy bàyyi xel li nga koy yaree mi ngi koy bàyyi xel yooyu lu lu am solo la beneen bi ci des mooy sunan yi nga koy jàngal fan yi passé am na ñett ba ñeent ñu ma woo sama daara ay gone yu jirim lañ ma laaj leen waaw yéen kañ lañ gëj gëj a ñaanal seen baay ñu ci genn wàll bi yëpp ni ma taj sax bis bu ne ñu ñaanal seen way jur bis bu ne xoolal loolu xale bi dañ ko koy jàngal ay ni may wax de ay mag de ay gone laay wax seeni way jur dafa faatu ñu ne bis bu ne ñu ñaanal ko gis nga loolu loo leen di ñaanal ñu ne àjjana firdaws ak yàlla jéggal ko ak nanga loolu dañ koy jàngal xale bi say way jur yi dund tamit nga di leen ñaanal kon faw nga xamal ko sunan sunan yi waaye booy yar tamit nee na ko na nga ko xamal fan lañ war a waxee ak fu ñu war a noppee ak am solo xale xam fu mu war a waxee ak lu mu war a wax kañ lañ war a wax ak lu ñu war a wax da ngay gis gone goo xam ni sa waay bu waxee rek wax musiba joo xam ni kenn xamul parce que xamul lu ñu war a wax ak fu ñu war a waxee xale dañ koy jàngal waxin ñun ñii suñu waxin yu jubu jubadi yi moo tax xale yi di ko dégg gis nga xale leneen nga dégg terme booy disco yi ñuy faral di wax ci mag ñi lañ ko déggee rek naar bu mag ndaw bi lu mu wax ci naar bu mag la ko déggee loolu olof yi lépp kon gone yi dañuy fexe kàddu yi ñuy wax ñu di ko sédd bala ñuy dégg ci ñun kàddu yu bon kàddu yoo xamante ni kàddu yu musiba la am na ci ñoo xamante ni boo nekkee ñoom musiba yooyu doo ko ñemee wax ay saagaak yépp xale bu koy def day fekk ci mag ñi la ko dé mag ji la ko déggee nee na ko fexeel ko ba xale bu mu bari ay reetaan xale bu nekkee koo xamante ni addina bi da koy reetaan day bari reetaan ndax reetaan yu bari day wawal xol mag ak gone ci bokk yam nee na ko na nga fexe ba bul koy sonal di ko andil ay misaal yu bare bare bari ba xel mi fat su ko defee day sonn waaye nag bul ko bàyyi rek boyal ko lu ko neex def su ko defee day yaafus waaye nee na bul taral ci kawam nag lu dul dafa dëgër bopp saa bu demee ba dëgër bopp nag sañ ngaa jël jumtukaay bi ñu tuddee yar te loolu dinaa ci ñëw yar am na tomb spécial boo xam ne ci loolu la yar dees na ko jëfandikoo waaye yar bu fële lañ koy jëfandikoo yar moom bokk na ci niñ koy jëfandikoo mooy wutub yar wett fii ci kaw wala nga yorub yar maanaam ab yarkat xuppaate mooy ëpp ci yaram maanaam gis nga wax ju bari jooju ngay wax ah def leen nangam nag loolu ngay wax te bañ a dóor loolu uslu bu am solo la ci wàllu yar maanaam xale bi da nga koy tiital ci yar bi ba moom day foog ni yar bi moom soo ko wàcce woon rek àddina bi tukki boo demee nag ba xuppaate gi bëgg a bari nga àjj benn bis yar bi ñamal ko ci nag gis nga boo ko ci ñamalee ñamal yu sab su waxatee nga ne ko ah gis nga ma ma ko fi àjjiwoon ne ma la defee bu ma ko fi àjjiwaatee gis nga yooyu noonu la ñuy yaree waaye du foo toll rek nga dóor dóor dóor gone gi déedéet loolu dina am buntu spécial boo xam dina ñëw li gën a garaaw nag yaay yi di ko def muy xët xët gis nga yax gi nekk ci gannaaw arab yi di ko tuddee al haykalul azmi yax gi moo tàmbalee fii gis ngeen ci ginnaaw bopp wàcc jaar ci digg ginnaaw digg ci ndunkuroon gi wàcc ba ci suuf gis nga yax googu yax bu sensible la saa boo déggee ni nit daanu na bañ ne yax ga damm na kooko sayee yax gu garaaw googu moo tax l'islam day bëgg yax googu surtout gone nga xam ni xam nga ay yaxam day oyof xët xët baaxul ci gone parce que mën ngaa dóor mu tombeeg nokki kaayam mën ngaa dóor mu tombeeg yax gi rëkk rëkk xët léegi loolu musiba ju loolu kenn du ko def baaxul kenn du ko def loolu dafa bokk ci liy yàq-yàq kon gone gi barab yi nga koy dóor da nga koy xam moytu bopp moytu ko kanam ah seet barab yi nga nooy yi nga xam ne boo ko ca dóoroon tey du gaañu lu mel ni tàllal loxo lu mel ni yu demee nga xamante ni gone du ca gaañu bu demoon ba ñuy dóor te loolu dina tombam dana ñëw insha allah noonu la ñuy dóoree loolu tamit ñu bàyyi ci xel. yaay yi tamit nañ moytu ko échec gis nga gone gi saa bu demee ba naan ba sama baay wàcc ba sama baay ñëwee ma boole la yaa ngi yàqu la yow yaay relation ak doom war naa romb nga dem ba mu lay eel di yàkkamti sa baay gis nga léeg-léeg nga gis gone yu mag gën a farak seen baay fekk daa am lu seen yaay def gën a farak seen yaay daa am lu seen baay def yooyu dañ koy moytandiku yaay tamit ci wàllu yar nay moytandiku yii moom maa ko ci dugal bokkul ci li waaju doon wax yaay ji nay moytandiku di wax seen sikki baay ci kanamu gone yi bàyyi ji di moytandiku di wax seen sikki yaay ci kanamu gone yi loolu kenn du ko def ci li gën a mën a yàq yar la bokk li ngay wax ak sa soxna kooku xale du ko fekkee la ngay wax ak sa borom kër gone waru koo fekkee tey jii kër yu bari boo fa duggee am nañu een seen yaay seen bàyyi ko waral parce que moo wax lu mu war a wax seen yaay mu tàbbi seen bopp xëy mag ñi ñoo am yar mag ñi da ngay dégg léeg-léeg bu ñu lay nettali bi sa yaay di sëy ci dëkk bi ci waxin dama dafa am terme bu ma neex bu ñuy jëfandikoo dañ naan hey yow kay xam naa sa way jur wu jigéen yow kay say nopp dañ naan nii say nopp say nopp bi sa way jur di ñëw fii xam nga say nopp mooy kàddu yii daa mënta ñàkk nga dégg ko rek nga waroo koo dégg yow xool wax jooju ni mu yaroo yow kay bi sa yaay di sëy ci dëkk bi say nopp bu ñee baatab say nopp mooy maanaam wax ji ëpp na ci sa nopp yi daal dañ ci am aajo moo tax ñu di ko waaye war a ko woon a dégg yow yooyu lu am solo la ci wàllu yar ngir xale bi xam lu ñu war a wax ak lu ñu war ta wax bokk na ci sëriñ bi li mu ko doon dénk mooy nee na saa bu demee ba nar a tënëg nga jëfandikoo nag ak dëgëral Abdul Malik ibni Marwan daf doon waxanteeg waa ji doon yar doomam am jàngale ba léegi ñu mën cee jariñu nee na allimuhumu sidqa kama tuallimuhumu alquran jàngal leen wax dëgg comme ni nga leen di jàngalee alquran xoola suñu xale yi bari bari ba dañuy wax lu amul xoola fen ni mu garaawee xale bu tuuti di doogul nga xam ne ay yaxam feragul sax ci soow sa way commencé mën a wax lu amul loo xam ni xale bi fan la xamee fen ci nit ñi la ko xamee ba léegi da nga koy tamal ak sëddëq ba bu ñu ko doon rey dëgg lay wax ba léegi da nga koy tamal sëddëq ba bu ñu koy rey sax day wax dëgg gis nga dëgg defe naa gis ngeen xutba ji ma fi defoon ci Kaab ibni Malik ak la ko musaloon ca la giñee woon ni ba keroog may faatu dootuma waxati lu dul dëgg ndax dëgg moo musal tey ñun nañu xam ne dëgg moo ñuy musal gone yi nañ jàpp loolu bu la dara jaral nga wax lu amul wax lu amul day day yàq sa digganteeg sa borom gis nga boo fenee benn fen yàlla da la ciy jéppi sax yow gone gi kon mag ma taxul di wax bul fen déedéet alayka bi sidq gis nga buñ la doon rendi sax est ce que xam nga ne am na yarkat yoo xam ne soo leen waxee dëgg ñu baal la loolu du yarkat yépp nag waaye ñi mën a yar dëgg dëgg dëgg xale bu bu defee njaaxu mu ñëw nangu bàyyi wala yaay wala oustaz maa ko def maa ngi sàkk nga jéggal ma insha allah ëllëg du ma ko defaat te muy dëgg nag laa wax da ngaa dëgg waaye li nga wax it na nga ci def dëgg nag ndax boo ko waxee ëllëg nga defaat ko yaa duggal sa bopp waaye fi ne suñu gone yi fan lañ xamee wax lu amul da ngay gis benn gone def benn njaaxu nga dikk mu ni billahi wallahi tallahi xale yi fu ñu xamee billahi wallahi tallahi ah léeg-léeg nga dem sax ku ni wala ci nafsu muhammadin bi yadi fan la ko xale yi déggee xale yi dañ koo déggee ci asamaan si wala mbaam yee koy ŋaax wala xaj yee koy mbaw déedéet ci mag ñi lañ ko déggee giñ yu bari yeeg wax lu amul yi ci mag ñi lañ ko déggee yaay gee nekk benn ñaari ñett mu daggu saaga mu mën a saaga léeg-léeg nga dem sa benn kër xarit da ngay rus sax da ngay wax ak xale ba mu yàgg rek xale bi nangam taan xale bi fan la ko déggee fan fan la ko déggee hee bu doon ca kaw ga bu doon ca kaw ga dootoo ko waxati bu doon ca kaw ga ci ñuy yar dëgg dëgg dëgg dëgg baat boobu bu génnee dootoo ko waxati mukk gan ñëw nga siggi di xujj gan bi di ko xool nii rek ba gan gi dem ñuy lekk sukk ngay tuur mbaa ñuy lekk ngay joxar joxari sa loxo bi ci digg ndab li ba ba ba lekk ba pare yooyu yarkat yi dëgg dëgg dëgg duñ ko bàyyi mu jàll tey ñun gone yi bu ñuy lekk dañ leen di bàyyi ñu sukk seen boolu bopp di tuuraatee ka waxtaanee ka xëccoo ka jiiroo ka loolu responsabilité mag ñi la ñuy yar la léeg nga gis ku yar doomam ci lekk léeg nga gis ku yar doomam ci jëflante même bu ñëwee fekk ay gan sax boo ko waxul demal day dem yooyu yëpp ab yar la bokk na ci li mu ko doon wax mooy jàngal ko ay dëgg comme ni nga koy jàngalee alquran ñun lu tax nit ñuy sonnee ci jàngale alquran duñ ko sonnee ci yar boobu ñaareel bi mu ne ko na nga ko fexe na nga ko jàngal ay jikko yu rafet tey nag way yëgg yu yàgg ya la ca am solo nga di ko ko wax gis ngeen way woowu siiw ah ahzanu qalbi la tazul xatta ubashara bilqabul wa ara kitaabiya bilyamin wa taqarra ayniya birrasul xam ngeen nu muy tekk gone ah way yu mel noonu ak a am solo mu ne ahzaanu qalbi gis nga njàqare bi nekk sama xol bi laa tazul xam naa mënagul a daj sama xol bi xeeti tiitaangeeg njàqare mi ngi ci boo xam ni laa tazul mënta daj ba kañ mu ne xatta ubassara bil qabul fi déw ma ba yàlla ni ma nangul naa la li nga ma doon jaamu mu ne njàqare bi nekk sama xol bi du dañ allahu akbar allahu akbar mbokk yi xool loolu ni mu mënee jëriñ mag waxuma laa gone wa ara ma gis kitaab yi sama téere jëf bil yamin ci sama loxo ndey joor wa taqarra ayni sama bët bi sedd bi rasul ci gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam saa bu ma demee ba gis yonent bi alayhi salatu wasalaam ak ñam doon àndal yàlla yëkkati sama téere jëf jox ma ko sama loxob nday joor ama man utiye kitaab bi yamini suñ ca jógee suñu borom ni ma diw ma ne naam mu ni gërëm naa la mu ni njàqare bi nekkoon sama xol bi keroog lay dañ allahu akbar xool yooyu ni mu amee solo gis nga de ak yeneen ak yeneen dafa cay tànn boobu rek waaye bari na yooyu léeg-léeg ñu koy waxal xale yi dafay am solo trop nee na na nga moytandiku gone yi képp koo xam ne mag mu ñàkk fayda la bul nangu gone gi di toog ak moom ndax day bu yàggee day ñàkk fayda mag mu ñàkk fayda mag mu xamut lu mu war a wax ak fu mu war a waxee bul nangu sa doom di toog ak moom ak koo xamante nii moom amutub yar muy mag muy gone bu dee sa da da ngaa gis gone gu amul yar fexeel na sori sa doom bu dee da ngaa gis mag mu amul yar fexeel mu sori sa doom nee na gis nga nag wax lu amut moom bul ci négocier ak sama doom saa bu waxee lu amut nee na nanga ko mbugal mbugal mu metti lu ko waral ndax bu mu ko defati ndax kàcc day jëme nit ki ci caay-caay te caay-caay day yóbbu borom sawara wala iyaasu billah xajaaj doon na wax kanam yar doomam naan ko jàngal ko feey avant nga koy jàngal bind ndax nit mën naa am ku ko bindal waaye mënta am ku ko feeyal loolu nag mooy lu gàtt-gàtt nga xam benn xeetu sport boo man xeetu sport boo man bu mën a doon nag baax na bu doon jamono bu yàgg ba la feey la doon doon ak fet ak lan des na benn ak war nga war buñ la yëkkatee ne la tegg ci kaw fas bi nga tege ci kaw teg bi nga teew ba dëgër mën a jaabal fas bi rëppatal ko mu daw loolu dañ koy jàng ndax dañ koy man feey te loolu xadis ñëw na ci yéen yaa ne nañ ko jàngal gone yi feey rëppatal fas ak mën a fet ndax jumtukaay la ñuy soxla woon boo ñëwee ba suñ jamono ji nag xëy na fay ba léegi ñu ngi koy soxla waaye nekkut nécessité comme na mu ko nekkee woon donte man ko baax na waaye nag xeet yi ñuy jàng bu fekkee mën nañ caa jàngal xale bi ayut moo xam karaté la moo xam kënfu la moo xam taekwondo la moo xam xeet yooyu ba mu des box nga xam ne moom box moom doo kanam a ko tax a jóg box ak aki mbokkam ak bëri ci nin koy defee yooyu déedéet waaye lépp luñ mën a jàngal xale bi ngir yaramam dëgër loola muy na nga ko jàngal ndax yooyu boo ko jàngalul moom kenn du ko mën a defal te bind mën nañ la kaa defal bind mën ngaa bañ a bind woo ko la bindal kon li nga xam ne xale bi da koy soxla te kenn du ko ko defal mu ni jàngal ko bala nga koy jàngal li nga xam ne mën nañ ko ko defal Omar ibn al-Khattab daa bindoon waa Sham ni leen jàngal leen seen doom yi feey sànni ak ngawar sànni mooy sànni fet kenn ci borom xam-xam yi da doon dénk ka doon jàngal doomam ni ko ngal la waay boo jàngalee sama doom bind bu leeragul ci moom bul jàll ci beneen ndax circulation bi gën a soof mooy circulation xam-xam fii nopp gis nga boo bindalee xale yi benn xadis wala benn histoire xale yi ñëw ni comprendre uñ ko jaaraat ci jaaraat ci bul tàyyi explique ko ba mu leer ba xale yi mën a jóg dem jëfe ji ko nga doog a jàll ca la ca des Ibn Sina daf doon wax ci yarum doom nee na na nga fexe ba gone yi boo koy yar fexeel ci sa yarukaay na nga am gone ku yaru maanaam mbooloo mi nga yar da nga ci am kenn ku yaru bu ko defee booy wax ak xale xoolal diw da nga naa ko xoolal diw xoolal diw ni mel yow diw da laa gën yéen a fi nekkandoo yéen a fi nangam gis nga loolu Ibn Sina mu ni gis nga jeexintal bi gone mën a def ci moroomam ma dolli ci li jeexintal bi jigéen mën a def ci moroomam góor mënu koo def jàngalekat mënu koo def gis nga jigéen day wujje bay wujje ku dul wujjem xale xanaa mën a wujje ci yaayam la ko gisee moom kon bokk ci saa yaakaar xale gis nga boo yoree gone gooy yar fekk ci biir ñi ngay yar am na exemple bu ci nekk léeg-léeg nga ne ko xoolal ci diw gis nga loolu moo ëpp jeexintal nga naan ko xoolal ci ustaas diw xam nga xale boo ne ko xoolal ci ustaas diw wala imam diw wala wala wala diw wala déedéet wala diw mi ñëw ci jàkka ji morom mi mu toll lool moo gën a def jeexintal morom mi mu def mooy gën a def jeexintal te loolu lu am solo la ah yooyu nit ki di ko jéem a jëfe bokk na ci yëpp yi nga xam dañ koy jëfandikoo ci wàllu yar mooy la Hisham ibni Abdul Malik waxoon Souleymane al Kalbi ni ko ah sama doom ji de sama deru bakkan la sama doom ji sama deru bakkan la yow laa ko jox nag ngal la waay dénk ko ragal yàlla te it na wóor bu mu jël yëfi jàmbur te it na nga ko jàngal ci ay way luy jariñ xamal ko ci histoire lu koy jariñ lu dagan ak lu xaram na nga ko ko xamal lépp luy xutba ak ay xeex ak ay xareeg histoire gaa yu yàgg ya na nga ko koy nettali gis nga xale xale boo koy nettali yooyu day jariñu de ak a mën a jariñ bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci wàllu yar mooy lu mel ni lii nu def nii nag tey lii jubluwaay bi du pour mag ñi kese li tax ñu woo ci gone yi nii mooy gone yi déglu ko ndax gone déglu waaraate jub jariñu jàpp naa ne comme mag déglu waaraate tamit jub jariñu bu dee ci jigéen ña ci seen wàllu muuraay ya ci seen wàllu yar seen wàllu am kersa seen wàllu ila axirihi maa ngi fàttaliku ca at yu yàgg ya ca at yu yàgg ya am na ci ñu doon jàng ci daara ji kenn koo xam ni benn bis daa toogoon ci bedd bi jigéen la xale bu jigéen muuraay gi def nii kawar gi di feeñ am ku ñëw fekk ko seen buntu kër ni ko waaye yow xanaa gisoo sa kawar gi di feeñ loolu mu yendoo koo jooy ba ngoon jot la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi lii lañ soxla tey mag ngi njëkk ña dañ lay nettali ñu ne am na koo xamante ni xale bu góor mooy ñëw di kaf ak moom rek daal di koy pap loolu mu toog ñaari fan di ko jooy pourquoi xale bu góor bi di ko laal noonu leen leen ya war a yaree ci piir ci seen bopp waaye xoolal tey ni ñu yaree suñu gone yi ah gone gu jigéen gi ak gone gu góor gi ñëpp yar leen ci lu mel noonu xale bi xamal ko góor góor ak nu ñuy soloo ban melokaan lan war a yore wax dëgg ak jëfe ak déglu fàttali jariñu yéen da ngeen yaakaar ni mag ñi rek kay déglu fàttali di jariñ gone yaa ngi déglu fàttali di jariñu de am na lu may bëgg a nettali lii may bëgg a nettali ki ko def mi ngi ci biir mbooloo mi maa ngi koy ñaanal yàlla nag mu saxal ko du ma wax turam nag dama koy làq moom it li may wax bu mu ci gis boppam te ci gone yi la bokk xooluma kenn nag sama kanam laay xool lii may wax dama koy nettali ngir ki ko def santee ko yàlla waaye ñi ko defagut bàyyi ci xel genn gone daa ñëw ci barab ba ni ma baal ma àq ma ni ko loo def mu ne ma damaa lekk riba mu ni kur riba yow foo xamee riba bay lekk riba mu ni damaa tegoon foofu tàndarma mu ñëw benn guddi sàcc ci te kenn yëgu ko xam naa def na ko loolu benn yoon ma ne ko toogal mu toog ma ne ko waa yow lan moo tax boobu ba léegi boole woo sa bopp nga toog ba tey ngay doog a boole sa bopp mu ni seen ustaas moo leen bindal ci tableau bi ni ki perte yowmal qiyaam mooy koo xam day indi ay julli indi ay woor indi ay azaka ah bu ko defee ah fekk am na kum sàccoon alalam am na kum mooy xadisul muflis rek am na kum sàccoon alalam am na kum nangamoon ñu yëkkati ci ay tiyaaba jox leen mu ni man bëggumaa dem ba àllaaxira di ñàkk samay tiyaaba la hawla wala quwa alhamdulilah fekk na fa mel ne mbokk ma ne ko kaay toog déglu li kii di wax li may wax ki ko def gone gu tuuti la mi ngi ci daara ji gone gu tuuti koo xam ne nekkagul mu kàllaf te xam naa sàcckat yu baree ngi ci lii nag di dégg li may wax te defuñu loolu xooluma kenn nag sama kanam laay xool ñu baree ngi fii ñoo xamante ni wóor na ma ni def nañ lu mel ni la waaj a def waaye kenn ñëw ci wax kooka wallahi yàlla xam ne ne keroog damaa kontaan lool ci li mu def ndax man xam naa ni kii ah yàlla baaxee na ko tudduma kenn nag xooluma kenn ki def xam na man xam naa yéen ñi def la ca dese te defu leen lim def xam ngeen xam naa yàlla xam na gis nga noonu la maanaam nit li ngay jàng di ko jéem a jafe li ngay déglu ci waaraatee fàttali xutba yi xool ajjuma ji jot am ngeen fi xutba imaam yi dañuy ñëw di xutba xutba yu am solo alarba ji jot am nañ fi dars tafsir dars bii ñuy def ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu dafa war a def jeexintal ci yow waaye xoolal ba léegi ba léegi yëf yi sutteegul lu ko waral mooy ay benn benn rek fi nekk nii ñooy jubbanti te lii may nettali ki ko def mi ngi ci biir ndongo yi kon yu mel noonu dalay wan ni xeetu waaraate yi ak fàttali yi am na solo lool beneen bi may nettali mooy kenn ci jigéen ñi la benn bis daa toog di jooy daa toog di jooy ñu laaj ko looy jooy subhanallah alazim léeg-léeg nga toog mu yàgg nga defee ne xale yi amuñu xel waaye xale yi léeg-léeg ñu raw mag ñi de xam ngeen lu mu doon jooya mooy ndax moom bu tàbbee àjjana dina ànd ak baayam wala ndax bu baayam tàbbee àjjana dina ànd ak moom loolu la doon jooy xol xol boobu yëg-yëg man damaa masa jooy lu mel noonu saa dund gi man damaa xalaat loolu sax faf xol xol yooyu yëg-yëg moo tax image yi dalay taqribal nga xam ne xale yi fàttali yi nuy def ak waara am na solo de am na solo de bul ko xeeb de ñi yàlla baaxal gone yi nga xam ne yàlla baaxal na leen yu sew sewaan ak yu ndaw ndawaan yi ngay nekk li daf leen di jariñ de ak ka am solo bul ko xeeb mukk leneen nga gis ci gone yi ci bu dee ci côté diine sax mu def benn xeetu yeewute boo xam ni yow da ngay jaaxle lii nu ko gone mën a defee waaye ci wàllu diine tamit noonu la am na ci gone yi ñoo xam ne seetlu daan fu seen njàpp tojee ñu dëgg dem dan jàpp yi loolu nag mi ngi wane ni kon ba léegi am na lu baax am na fu ñu ko déggee am na ci gone yi ñoo xam ne du ñu fëgg mukk jàkkaarloog sa néeg dañuy xaar nga wax leen bismillah ñu doog a dugg am na ñoo xam ne c'est très rare nga di leen caw lu ko waral parce que sàmm nañ ci ila axiri am na ñoo xam ne li nga leen tere mbaa nga digal leen ko te li gën a li gën a li gën a garaaw mooy mooy sa ndigalal sëriñ sëriñ bi lay jàngal moo xala defal nangam defoo ko ah bàyyi nangam bàyyiwoo ko lu garaaw la mbokk yi lu garaaw la yu bare bare xale yi bu ñu jógee feet dem seen kër da ngay commencé ñuy nettali barab ba lii daara ja lii def na lii def na la lee xale kenn du ko tamal nettali anas ibne malik goos bu ndaw yonent bi da ko yónni alayhi salatu wasalaam yaay ji ni ko eh kaay mu ñëw mu ne ko foo jëm mu ne ko yonent bi moo ma yónni mu ne ko lu mu la yónni mu ne ko ah yonent bi woo ma déey ma ko nga xam ne dama la koy wax pourquoi ma la koy wax gis nga allahu akbar mbokk yi xoolal anas gone gu ndaw xamuñu siiwal secret ay nettali xale yi buñ toogee ci daara ji sa way ku ci gën a mën a nettali rek nga ni kii la nettali jullit du tàmbu nettali yooyu yëpp ay xeeti mbir la yu ñuy yar léegi nag bokk na ci yiy dimbale nit ki nag ci bunt boobu mooy yarkat bi ci boppam dafa am ay usul yoo xam ni ñun nag dañ koy faral di sàgganee ñun yarkat yi te am na solo trop usul yooyu bokk na ci mooy ak tarbiyatul imaniya mooy nit ki fexe ba xale bi gëm yàlla c'est possible lu mën a nekk la xale bi gëm yàlla waaw xale bi gëm yàlla bëgg yàlla wóolu ko loolu da nga ciy sonn ñun da ngay ñëw jàngale xale bi bokkalee nga bàyyi ko bu mokkul nga caw ko heure bi jeex mu dem nga dem loolu lii lii mooy lan lii du dara du dara daanaka loolu du loolu lañ doon jàngalee Qur'an maanaam ndongo bi ak sëriñ bi dañu war a am relation su ma génnee daara ji ma wax kon way juróom doom ji dañu war a am relation su ma génnaatu fa ba ni yarkat bi ak ki mu yar war nañ am buumi jokkoo di mën di waxtaan lekk lay léeg-léeg nga wàcce sa bopp am na benn waaye daf maa mas a fekk si daara ji ba mu yàgg mu di ma xool mu yàgg mu ne ma mu ne ma yéen sëriñ daara yéen ay gone ngeen doon fu ngeen toll ma ne ko lu tax loolu mu ni parce que xale bi soo wàccewul sa bopp ba tolloog moom doo ko mën a yar wax na xekk ma dëgg na gis nga bépp yarkat bu nanguwul a wàcc bay kaf ak gone yeeg yu demee noonu doo mën a yar yent bi alayhi salaam xooroon na lool waaye daf doon wàcce boppam di yar waaye di wàcce boppam tamit di nun rek ak tarbiyatul imaniya mooy fexe ba xale bi xam yàlla ah yàlla mooy ku màgg ci moo ñu bind lam yalid walam yuulat jurul kenn kenn jurul ko amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem nuróowut ak nit nuróowut ak jinne amul lu muy nuróol ah ma nga ca taw nam fa nekkee moo ko xam xam ngeen taw bii ni de kenn mënu ko wàcce xam ngeen ne naaj wi nit mënu ko fi indi xam ngeen ni weer weeg lëndëm gii xam ngeen nit mënu ko fi indi ndox mi ñi lim lim lim xale bi dimension bi xelam xam nga nekk fi naan ah xadriyee ñooy ñii jabriyee ñooy ñii ma asaayira déedéet loolu xale bi tollagul foofu kooku tamit ñu bàyyi ci xel xawatabu naas ala xasab uqulihim xale boo toogee moom yàgg nga ne ko yow saa war nañoo sant yàlla de mu ñu lu tax nga ne ko xoolal ceeb bi réew bu bari sori lañ ko bayee xoolal lëjum bi boo demee ma nga génne fii xoolal jën bi boo demee ma nga génne ci géej sàngam xoolal lépp yàlla dajale ko andil lu ko fii tey ñu añee ko yow yaay kan ba yàlla defal lii xale bi loolu mën na koo dégg mën na koo dégg de xale yi dafa nu xam nag loolu su ko defee yooyu day tax lii ku ko def yàlla rek moo ko def subhanahu wa taala te moo ne jamono bi nga koy lekk am na ñoo xam ne ñu ngi xiit bay wa ñaaru gis nga yooyu nga di ci yar xale bi fexe ba xale bi xam malaaka yi ndax comme gaa yaa ngi jël ay malaaka di leen deseene ñu yore laab di yóbbi ay juma ñee di jël ay malaaka di leen wax loo kii naan jibril démb la ma dikkal loolu lépp xale yaa ngi koy dégg xamal leen ni malaaka du lekk du naan du xiit du mar du noppalu du nelaw du mooy yàlla ndax xamu ko te it nag day jaamu yàlla fu mu mën a toll àllaaxira buy déposé aw kayitam danaan yàlla de dëgg dëgg ni nga màggee jaamoowuma lu toll noonu allahu akbar xale bi dégg loolu jibril kañ la fi gëjoon ba fi yonente bi jógee sallallahu alayhi wa sallam ñëwatul ku la wax jibril yooyu xale bi di ko xam kon malaaka du ko ñuy gis malaaka koy sukuraat moo ko gis te malaaka moytu ngay gis boo ko gisee da ngay dee waaye malaaka yi nii doo leen gis déedéet yonente sax li muy foor foor foor ñaari yoon la mas a gis jibril ci melokaan bi ko yàlla bindee mu am juróom benn téeméeri laa yonente bi ñaari yoon te jibril ñaata yoon la dikkal yonente sax ñaata yoon la alquran di wàcc ñaata yoon la sunnay wàcc yooyu xale bi xam ko nga ne ko ah sa waay bul kàcc am na benn malaaka bu nekk sa ndeyjoor am na malaaka bu nekk sa càmmoñ loo def ci lu baax kii bind ko loo def ci lu bon bind ko gis nga fi mu nekk nii soo bàyyee ba xale yi dugg ci biir xalqa bi jàng yow nga dem yoot ndànk roof sa sa loxo dugal ci saagu jàmbur génn 2000 ba fa nekk debaru ko sa tubay xam ngeen debaru xale yi xam nañ debaru xam nañ loolu de mooy boxam jël tubay ji nii nga xam ne amul poos nga xam ne ku la enquête doo ko gis ñu defee ne da nga kaa def ak ñoor fekk déedéet la nga sàcc nga fa dugal yooyu yëpp wala xale bi sàcc ba pare dem fekk miir bu yeggul ba mu daal di koy xosob xosob bënn ko jël affaire bi tàmbal ko fa gone yi xam nañ li may wax de waaye baax na yàlla de gis na wala nga sàcc ba pare dem yëkkati ab mool fu kenn dul jaar nga teg ko fa xale yi xam nañ li may wax barki de mu fekk naa ci tableau bi ñu bind fa iyaakum wal xasad maa ngi leen mooy ca ndikuloo añaan ndax añaan day lekk say jëf yu baax comme ni sawara di lekkee mat li da nga gis benn xale bu añaan diw bàyyam jëndal ko ay dàll yu bees rek mu bàyyi ba guddi nit ñi tëdd rek mu jóg lañ sat ko xale yi xam nañ li may wax xale yi xam nañ li may wax mu jóg lañ set ko am na ñuy def loolu am na ñoo xam ne da ngay bàyyi ba nga tëdd rek ñu jël lañ set ne tareet sa mbob mi daal di waat baax waaye yàlla mi ngi lay gis malaaka yi gis nañ ko malaaka waaw defal lu la neex malaaka yi gis nañ ko nga yollee ko dem fon lay cere bëri am nga yollee ko ndànk dafa ne oustaz yëgu la nga dem seetaani télé waa baax na yàlla yi oustaz ak sa yàlla gis na la nga dem sa wana wa ngay ngay saw ngay tuur ndox ah kenn gisaloo nga ñëw waccax tuur ndox foofu laa boo defoo dara génnaat ñëw bëgg a yore téere yàlla bu sell bi malaaka yi gis nañ bind nañ yàlla gis na ah baax na fekk muuraakeb jàmbur wala fatu sokalaab jàmbur léeg-léeg nga gis ko xam day bàyyi ba gisul kenn mu ñëw daal di nuqati ci fatu sokalaa bi daal di koy def ci ak mbuus génn ak moom léeg-léeg nga gis ko xam day jël muuraake jàmbur sàcc ko daal di génn dem làqatu ci ruq boo xam kenn du ko gis mu lekk ko ba mu jeex ñëw ni xiim kenn du xam ni moo sàcc muuraakeem jàmbur baax na yàlla xam na yàlla gis na gis nga yooyu xale bi nga yar ko ci mu xam ni malaaka yi ñu ngi koy bindal yàlla mi ngi koy gis xamal ko téere yi yàlla wàcc na alquran wàcc na tawraat wàcc na injil boo xamul yooyu xamal alquran téere bu sell la dañ ko war a fonk ah xoolal suñu téere yi da ngay ñëw fekk gis nga léegi ca fenêtre ba après day naaw li nga dem ci kees yi nga fekk sa way jóogi téere nit ñi toroxalee alquran dañ ci yarul gone yi dañ ci yarul gone yi gis nga barab yi nga xam dañu fonk alquran fu mel ni saoudia wala yu demee noonu même nii nga jël kaamil bi nii xool moket bi ngay jullee fi nga toog di julli nga jël kaamil teg ko ci suuf sax da ngay gis ku ñëw ne la yaa xi azim alquran matal alquran yëkkati ko alquran da nga ko waram ci loo ko teg sa yére du fu nekk nga koy toogal da ngay gis koo xamante ni sa waay yëre yi day xool fi muy toog waaye alxuraan bi fu mu ko teg baax na waaw toroxal la waxoon ba borom alxuraan toroxal la ku la gën a fonk alxuraan rek borom alxuraan fonk fonk ko dimbali ko da nga yor benn téere fonk ko nga xam ni du xotteeku du ah léegi xool gis nga ku sa téere xotteeku doo mer de waaye ku xale yi ku mu xotti sa yëre nga ñëw boole te ñu xotti sa téere doo ko boole parce que yëre bee la gënal téere bi yooyu xale bi ñu yar ko ci gis nga malaaka yi am na ñaar ñuy ñëw fekk la ci biir bàmmeel di la laaj ñu tudd munkar ak nakiir billaay bu dee sàccoon nga muraakem jàmbur nga sàccoon sokolaat jàmbur ah wala nga sàcc yëfi jàmbur wala nga tooñoon diw bu la malaaka yooyu fekkee ci sa biir bàmmeel yow kese du xale yi gis ngeen ni ñuy def ku faatu gis ngeen nuñ koy def ah dang koy sang ba mu set kàllal cër yi ba mu ni ñareet hmm après ñu sang ko morso bu weex jàppoo ko teg ko ci ab ab kees wala lu mel ni bant yóbbu ko fan ci armel ba suul ko daal di ñibbisi ñu bàyyi ko mokkal kan moo koy wettali kenn allahu akbar kii nee na jëfam jëfam moo koy wettali ay waaye lay wettali yàlla nay jëf ju baax sàcc gi sàcc gaa lay wettali daal di jàmbur yaa nga lañ sa toon téere jàmbur bi nga xutti woon ah wala nga jël dàll bi sax bàyyi ba gudd jotee nga ni ko xur sànni ko pour benn dàll ba réer beneen des ngir naqaral xale yi xam nañ li may wax gis nga yooyu yëpp wala boog jëf ju baax bàyyi ba guddi am na koo xam ne mi ngi ci mbooloo mi xooluma kenn nag maa ngi sëkk sama téere mas na maa ñëw benn fajar di yeete ci ndeysaan ñaari yoon ba ñetti yoon maa ngi koy gis mi ngi naafila jël loxo yi def nii di ñaan sama yaram bi daw xooluma kenn nag sama téere lay xool xam naa ne ca lëndëm ga la ko doon defee ndax sama torsu laa yoroon sama torsu laa yoroon may nit di nit di nit ki may wax xam na xam na may nit ba ni ko tay ma seen ko ci benn ruq mi ngi toog julli ba pare toog def nii di ñaan wallahi sama yaram bi daw yu mel noonu ak am solo xale yi di ko def lan moo tax doo doo guddi gi ah da ngaa bëggul lu baax julli ñaar ràkka ci lëndëm gi ngir yàlla sutural la foofa gis nga la la adam ak xaam waaw salaamaaleykum yaa mu addin taal naa nga alhamdulilah kon bokk na ci jëfandikukaay yi nga xam ne yarkat bi da koy jëfandiku comme ni ma ko waxee mooy xamloo nit ki yëf yooyu malaaka ya lay fekk ca bàmmeel alaxira bu ñu dekkee ñun ñëpp ñu ñëw ci kanamu suñu borom ah sa téere jëf ajana gone xam na lu neex gone xam na lu neex xam na lu mitti ah bu gone teg lakkoon ciw xal xam na nu sa war a mel ah boo ko jëfee ay yëf yëfaan yu neex xam na ajana yooyu nga di ko ko misaal ci xas ba fi xelam toll muy wut ajana xam ngeen ni ñii ma wax léegi ci gone yi ma jot a gis man am na luñ bëgg a mucc ci sawara waaye gone yële ma wax it am na luñ bëgg ci àjjana hakada ci wàllu col koom bu dee góor bu dee jigéen yooyu yëpp xamal ko lu mel ni julli xoolal julli tey ñun daanaka niñ ci war a yare suñu gone yi des na xale bi da nga koy jàngal ni boo jógee jëm jàkka ja amul daw ñaata gone ñoo ñëw jëm jàkka ja di daw boo dikkee sa tànku ndeyjoor ngay jëkk a jiital am looy ñaan ndax xam na loolu bay mokkal ñaan ba boo duggee ñaar rakk nga war a julli balaa ngaa toog da ngay gis gone gu dikk rek toog boo jullee ñaar rakk ba noppi mën ngaa jéggalu yàlla def say kër rek ila axir yi def say mbir loolu xale bi dañ ko jàkka néega bi yàlla la dañ ko war a fonk dañ ko loolu gone dañ leen koy xamal ñu bàyyi ci xel soo ñëwee nga am yar gis nga ni ngay amee yar ci jàngukaay bi ngir jàngalekat bi ngay bañ mu dóor la ngal la waay bu ngeen fi jógee am leen yar ci jàkka ji jàkka néegu bi yàlla la ah yërmande lañ fiy sàkku ba keroog muy génn kon bërëm yërmande bu mu la gis fekk amoo yar gis nga julli woor woor gis naa gone yu bare bare bare bari ñoo man fii moom bunt bii moom alxam ah gis naa bunt bii day bu dee xale yi ni ma ko foogee noonu la amee ñoo ci man mag ñi moom ndax gis naa gone yu bari bañ tàmbalee woor alxamis ak altine yàgg na lool kooku yàlla yàlla saxal leen te dimbali leen bari seeni morom ten wàllu ko mag ñi nag nga xam ne duñ woor kon yaa ngi koy def de waaw di ko tamal woor bal sax nag bokk na ci yar mooy nga di leen neexal ca yooya neexal ah mbiri lislaam yi fexe ñu bëgg yàlla subhanahu wa taala maa nit ki sëmbërtal ci moom bëgg yàlla yàlla boo feebaree moo lay faj boo ñàkkee moo lay may moo la wërsëgal moo indi sa lii moo indi sa lële xeeti yëf yëfaan yi nga xamante ni yooyu lislaam da koo jàngale ñu di leen ko waxal ñoom xale yi su dee gone gi nga xam ne way juróom daa génn àddina ñu di ko jàngal xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak li yàlla yoonal ci ñu koy def ci jirim mu xam ni kon moom ndekete lislaam kat bàyyi na ko xel ah bal sax nag boole na ko yooyu yu mat a bàyyi xel soo paree ñu sëmba jëmbat ci xale bi bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam gis nga nit ki boo ko bëggee ci ngay fonk sunnaam est ce que xam nga ni mag ñi fi ne ki la gën a bëgg yonent bi moo la gën a fonk sunnaam parce que nit ki loo xam doo ko foyee loo xam dëgg xam valeur am kan mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam Muhammad la tuddoon Abdallah baayam Amina yaayam Makka la juddoo Madina la faatoo loolu dafa tuuti lool ci xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dafa tuuti trop kooku daanaka matul sax kàddante waaye ñu xamal ko kan mooy yonent bi alayhi salatu wasalam allahu akbar ak yonent bi ni mu fonkee woon xale yi ni mu bëggee woon xale dana dem jàkk ji tungoom ay xale ah gis xale bu ñëw jàkk mu yëkkati ay ciggi tàndarma may la ko neexalee la ko ah mu gis xale boo xamante ni daa xaw a feebar ay moroom di ko daw mu ñëw jege ko ah daal di koy kot si na waaw kan moo bëgg ma jaay ko benn jaam bu rafet waay gis nga yooyu yëpp yonent bi da ko doon def sallallahu alayhi wa sallam fekk benn xale buy fo yor am picc picc pigeon xale bu am pigeon di ko yar yonent bi tuddee ko aba umayr dàkkantal ko moo tax borom xam-xam ñu ne même mën ngaa dàkkantal gone comme niñ naan aba muhammad aba ahmad aba xaalid aba nangam ah gone gi sax mën naa am kunya fi ne yéen ñii ku neex nga am kunya kenn terewu leen ko kii nee na aba muhammad la bëgg kii nee na aba abdillah la bëgg kii nee na aba aisha la bëgg kenn ku nekk lu mu bëgg rek ñu kéréyal ko ko mu jël ko yonent bi ne yaa aba umayr ma faala nu gayri benn bis yonent dafa ñëw fekk ko ah waaw ana pitax mi mu ne ko pitax maa ngi beneen bis yonent bi ñëw fekk pitax mi daa dee yonent bi fekk xale baa ngi ni gooy toog benn place yonent bi ne ko yaa aba umayr ma faala nu gayri aba umayr tasgir la an nu gayri tasgir la mooy xëti mu ndaw rek ah waaw aba umayr yow pitax mi nu mu def mu ne ko pitax mee dee moo tax mooy ñàngal tey gis nga yooyu yonent da ko doon def sallallahu alayhi wa sallam gis nga kon fexe gone gi xam yonent bi alayhi salatu wasalam bëgg ko xale bi bëgg yonent bi alayhi salatu wasalam mbëggeel koo xam ni yonent bee koy gënal baayam gënal ko yaayam gënal ko nit ñëpp nga gis kenn ca saxaaba yi koo xam ne dañ ko laaj ni ko waaw yow fii ñu la yeew di la cuuj ay dégg xam ngeen dégg jël ay dégg di ko ko cuuj waaw yow est ce que bëggoon nga yonent bi ñëw fii ñu koy cuuj ay dégg mu ne wallahi bëgguma yonent bi alayhi salatu wasalaam fa mu nekk dégg di jam dàllam waxuma la tànkam kon kooku bëgg na yonent bi alayhi salatu wasalaam soo paree tamit di ko bàyyiloo xel ahkaamul xalaal wal xaraam léegi bi may jeexalee mooy occasion yi ngay am nga di ci profité xale léeg-léeg da ngay wéet ak moom te loolu jàngalekat yu bari duñ ko def gone gi da ngay wéet ak moom léeg-léeg wax ak moom xale bi wax la nun léeg-léeg ñu essayé ko waaye subhanallah day jàll da ngay gis xale bi dana la wax loo xam ne bu doon wéetu leen du la ko wax loolu ci uslubu tarbiya la bokk occasion yi ngay am yonent bi daa am benn bis occasion Abdullah ibn Abbas daal di koy yóbbaale yonent bi yóbbaale ko ci mbaam mi mu ne ko sawaay ihfazullaha yahfazuk del bàyyi xel yàlla di ko wattu yàlla wattu la ihfazullaha tajidu tujahak foo tollu del bàyyi xel sunu borom di ko jaamu su ko defee loo jaaxle rek sunu borom a ngi sa fekk di la dimbali wa ida saalta fasalillah gis nga booy ñaan yow gone gi abdullah ibn abbas xale la mu ne ko booy ñaan ñaanal yàlla booy ñaan ñaanal yàlla yow sa téere daa xotteeku demal nga julli ñaan rek nga ñaan yàlla gis nga boo ko gëmoon léegi tey benn waaye mën naa jóge fa la tase yow may la téere wallahi may la téere léegi bu gaaw oustaz aw ma téere sama téere dafa xotteeku demal ñaan ko yàlla yàlla moo moom téere yi ak borom téere yëpp demal ñaan ko yàlla amal ngëm-ngëm boobu gis nga ida saalta fasalillah booy ñaan ñaanal yàlla wa ida saalta fastain billah booy sàkku ndimbal sàkk ko ci yàlla leçon bi daa mokkul demal sàkku ndimbal ci yàlla julil ñaar rek nga ñaan yàlla mu yombalal la ko nga yeewu léegi mu mokk gis nga mu ne ko xamal ni jinne yeeg nit ñi bu ñu dajawoon ñëpp bëgg laa jariñ te yàlla àndu ci loola du la jariñ jinne yeeg nit ñi bu ñu àndoon bëgg laa lor te yàlla àndu ci du la lor benn bis moom occasion gis xale bi di lekkee càmmoñ mu ne ko eh lekkeel sa ndeyjoor bi te lekk sa kanam te lekk loolu boo suuree nga jug kon yi ay xeeti yëpp la yoo xam ni yi lenn la ci ab xaaj ci buntu tarbiya jàpp naa ne buñ ko jàppee incha allah beneen bindaat laal la suba xëy na darsu du am ndax dañoo am jeneen yitte ju ñuy dem alxamis bu sunu borom defalee tawfiq dinañ indiwaat ñeenteelu dars bi di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq te lii nga xamante ni lu jafe la muy tarbiya yàlla yombalal nu ko te dimbale ñu ci li nga xam mooy sunu njaboot wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain
好，但是。